lool ci dalal bi ñu dalal ci sa site bi te mu doon lu yaatoo yaatu lool lool lool sax ndax jamono bii ñu toll àdduna bi yëpp a koy topp ci lu ñu xam rek laaj yi ñu laaj ndax comme que daa xaw a xam nekk ci ndog ñu indi ci ay tontu yu gàtt rek booy xool wéru koor yi yépp ba fi ñu toll benn bis bu mu ci mën a doon ci koor bi sëriñ baa ngi taxaw mbooloo yi ci naafile yee sump yeeg ndogu yeeg dem ba kenn ku fi ñëw booy liggéey da nga ànd ak ñeent wala juróom boo ñëw ba fi ne mbooloo mi fi sosi kenn xamul nu mu toll mbooloo mi fi dajal kenn xamul nu mu toll lépp nag ci mbaaxu sëriñ bi ak xéewalam yu yaato yaato yaatoo yu ko yàlla suñu borom defal yàlla na ko yàlla dolli bu baax a baax a baax moo la ñu démb rek lañ doon tëj kaamil bi sëriñ bi def ci yéeme yéeme loo xam ni lu yéeme lool sax nag moom mooy ñi doon naan seeg taxaw kaamil bi kaan yi nga xamante ni ñoo doon ñoo doon jiite naa fi teral nenen leen teral bu jéggi dayoo bu kéemaane kéemaane kéemaane sax man mii dem rek am na samay ñaari tuutànk samay doom yoo xam ne wàcc naan alquran ñoo ngon di jotay te sen rak def naan li ko dese bari bu kon suñu bàyyi jóge ci alquran te bu yaatoo yaatoo ya waye mu mel ni tey jii la ñuy tëj bi may wax ni képp koo ah, xamante ah, ni bëgg nga ndimbalul yàlla ak lu seexul xaddiim mhm. bu duggee sa nopp nanga def ay yitte ngir ñoo fekk si ndax dafa doon loo xam ne ñor na sëriñ bi ñor goo xam ne ku ci xasa nga teew ci wala nga teewlu ko lu ne mën nga ko ciy jëm. Mhm. sëñ waaye lu wutelee daal mooy kooru ren gii daal gis nañ ci ndimbalu yàlla bu baax. Mhm. gis nañ ci kiimaanu borom bu baax. sëriñ bi daanaka ban dooree koor bi ba fii nu toll. Mhm. ci mbégte la ne. alhamdulilah boo ko xoolee rek da nga xam ni ci mbégte la ne. ndax ndax xam na ni bu dul bu dul weer yii. li mu li mu ci li mu ci li mu ci li mu ci def jaamu yàlla yi mënu koo def ci wenn weer hmm. kon mu mel ni pour que euh, kaamil bi tëj nañ ko démb pour hmm. que bee ci des say pour que bi ci des nii na hmm. wax dëgg yàlla xam naa ne bu jàllee tey jii boo ko liiree ci kanamu sëriñ bi da ko ci gis xam naa ne lu jàll tey jëm fan yi ci des ni mu mbégte yi mu doon am da ngay gis ni day day xaw a. la daloon sëriñ sëriñ sëriñ bu mag bi. Mhm. da koy da koy xaw a dal ci wet boobu. ndax moom kooku rek la tëj bët nag moom moom la ni dan waaw moom Cheikhul Khadim rek la ni dan mhm. yàlla mi tim xam. Mhm. te li am fii ci barab bi nasu. néew ma amul fenn waaye mën ngaa dem fu bari doo ko fenn. kon ñoo ngi ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi loo tuwe. mbokk taalibe yi yàgg fi loo te bari wërsëg lool. amiin yàlla na am ay milliards. amiin amiin amiin amiin amiin ngir liggéeyal ko sëriñ bi. amiin amiin. ànd ceeg moom. fépp mhm. fu mu jëmale ñu jëm fa. ñun sëriñ bi rek la ñu am moom moom lañ bëgg moom lañ gëm. Mhm. ku ko bëgg bëgg nan la. Mhm. ku ko sopp sopp nan la. ku ko kiiwul nag moom. noonu amuñoo ak yow benn affaire. yàlla mi ngi moom la mhm. waaye kun xam ni bëgg am nga ci moom ak bëgg mhm. wala nga am ci moom ak sopp mhm. wala nga am ci moom ak jàpp boo nen tëddal sax lu tëdd a jàpp suñu kaw jàll ñun sëriñ bi yegg nañu ko kon ñoo ngi koy ñaanal kan jàll ñu yàgg si loolu yow sa site bi dem ba doon ay télé télé amiin yaa rabbi sëriñ bi loolu la loolu la bëgg loolu te junj ko te moom lu mu xas a wax yàlla defal ko amiin kon yàlla na ko yàlla def te mu fekk la. Mhm. nga tal ko. amiin ànd ceeg sa sabo. te liggéey bi nga ko bëgg a nga liggéey ko liggéey bu yaatu te doo ci am benn gàllankoor. amiin yow sëñ Saliou mi ngi ko àndal. Mhm. kon ñoo ngi wàcce foofu suñuy kàddu. Mhm. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ah, jërëjëf. Ah,